Mbodj man la man la tànn pour ma plaider lu ko mais gis ngeen ni damay confondre ci attitude Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey amul kàddu Ousmane Sonko tey ay ay ay député yi ñoo ñëw ci plénière bi député yooyu ñëw ci plénière bi ñoo wax ne lii ñu gis nanguwuñ leen jox kàddu kenn ki nga xam ne mooy jël kàddu muy Toussaint Manga nanguwuñu question préjudiciaire bi nga xam ne article soixante quinze bu règlement intérieur moo ko moo ko santaane nanguwuñu ñu usé ci article soixante quatorze bi nga xam ne mooy question préalable président bi nanguwul noo wax dara député yi nag ñu ngi nii man damay féete ci côté Ousmane Sonko damay identifié wu ci Ousmane Sonko mais moroomu député yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci salle bi ñoo ni Aïssatou ñëw leen yéen a ko wax ñoo ni li ñu gis doyu leen li ñu gis leen parce du ñu jël seen collègue takk ko di ko livrer justice boo xam ne leeralul dara parce que ñun xamuñu x et que il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de travailler pour le juge d'instruction réquisitoire procureur bi comme ni ko avocat de la partie civile bi waxee su ne juge d'instruction bi x la visé juge d'instruction bi ñaar lay mën a def yem ci x boobu ko réquisitoire introductif bi jox ah. wala mu wut ay moyen déglu partie civile bi wala mais assemblée ne leen x Ousmane Sonko la est-ce que assemblée waroon na am attitude bu responsable boo xam ne dina ko wan ni ko ah ñun de bu dee sa réquisitoire boobu def ne x ñun duñ la liggéeyal parce que bu lu mu bon bon bon yàlla principe de séparation de pouvoir assemblée warul dugg ci affaire judiciaire moo tax ma saluer l'attitude des députés gisaguñu Ousmane mais je suis sûr que lii collègue am yi wax parce que ñoom dañ jël seen responsabilité jël nañ seen responsabilité ni carnage bi duñ ci livrer mais et puis lié seen collecte. assemblée ñu ngi bëgg a liggéey liggéey juge d'instruction mais amuñu argument parce que ñàkk argument moo tax nanguwuñu député yi wax dañu museler tey jii dañu museler les les les députés arracher leur li nga xam ne article soixante quatorze may nañu ko ak soixante quinze yëpp nanguwuñu mu mu mu ñu doxal ko. dégguloo ma ne la député yi jël nañ seen responsabilité ñoom nee nañ. duñu livrer Ousmane Sonko ci confusion bi